Baye di di di Cheikh Mahi Ibrahima Niass. Euh, micro dafa doy waar micro dafa doy waar ndeysaan man kii kii euh, kii di wax nii dama déglu ñaar ñetti vidéo am dafa ma impressionné parce que dama jàpp nii kuy def ay analyses yu pertinentes la li tax ma ne micro dafa doy waar boo toppee appréciation nit yi ci mbedd mi. ba nga génn naturalité bi yàlla defoon ci boo waxee da ngay jaxasoo loolu benn la ñaareel bi bu ñu nee da nga am fit da nga ñemee dëgg da ngay xool ban dëgg ngay wax danga am fit da ngay xool lan nga ñemee affronter ak lan mooy fit lan lay tekki vraiment man Kona foog ma woon ni moom première vidéo yi ma jëkk a seetaan appréciation yi ma am ci moom fooguma woon ni dina ëgsi ci niveau bii nii niveau di attaqué xalifa faydatu tijaniya non wax dëgg yàlla xalaatuma ko woon boo bëggee am fit ak courage boo bëggee di wax li tax sa dëgg yi sax nit ñi di ëmb di la ëmbal cofeel da nga leen di fonkal seen kilifay diine yi doolaal pas-pas wax xam ni ngay wax ma ëpp solo pas-pas kenn du ko laal loo am am fit loo am am courage kenn du laal pas-pas Euh, lan moo sabab benn xeetu assemblée nationale am benn décrédibilité bi parce que bu ñu permettre ay député ñuy taxaw di attaquer ay kilifay diine yi jàmbur ay ay sëriñu jàmbur euh, ay ay maison de presse yu ñu fi attaqué yëpp am na fi te li ko sabab mooy saa boo gisee mu am parce que benn nit dafa attaqué pas-pasu jàmbur doomu aadama dafa juddu ak ngëm-ngëm. quelque que soit ak lu man di am dina am loo gëm parce que noonu la yàlla bindee nit ci composition wu yaramu nit am na foo xam ne foi yàlla moo fa def du lu ñuy du lu ñuy palpable lu gis dafay ànd ak nit ki faaw mu am lu mu gëm bu gëmee garab bul ko xasal garabam bu gëmee jant bul ko xasal jantam bu gëmee nag bul ko xasal nagam parce que yow li la li ci li ngay xalaat euh, Kona moom boo ko waxoon ni ko Cheikh yi ñas bi mu demee Soudan ñan la jubale ñan la boole ñu toog xamu leen xamul li ay tribu la woon maanaam ay xeet la woon pour moom état la wala soldat fi nekk di xeex alors xalif bi daaw dafa fekkoon ay xeet yu mënul laale woon nekk ci ay province mu fexe ba ñu nekk benn bokk ndey ak baay comme utu ak tut si nekkoon Rwanda demul woon pour ni day régler doxalinu état bu Soudan donc mu ngi wax lu mu comprendre parce que suivre lu information benn ñaar bi ci des booy wax ñu apprécier la da ngay dal bu ñu da nga am fit da ngay dal man chaque jour ma dégg baatu da ngaa dëggu déedéet damay jàpp ni dëgguwuma dama féete ak askan bi. mais ba ki may waxal duma ko manqué de respect pour mu mën maa déglu pour mën a recevoir ko askan bi ma ko yóbbante nit dafay dal mooy tund ku leen di attaquer pas-pas mooy tund ku leen di attaquer pas-pas manqué exiger nag moom ñaari intervention yu ma déglu woon ba naw ko jàpp naa ni dinaa ko nawaat xam nga ni koy nawaatee mooy dina am modestie defaat vidéo bi mu defoon baalu. jéggulu xam ne dafa juum. parce que kuy wax ci làmmañ euh, euh, xëfwatul kawaada euh, jawaada mhm. muy fas wuy daw ci course mooy mooy fakkastalu d'accord rapidement Birahim sa gis-gis ci ci sorte boobu nga xam def nañu parce que ñu bari ni également ñu ngi ci dugal mbirum politique